Mhm. après mu daati jàll ñu gis la ci li nga xamante ni moom moo di ay production yoo xam ne Marodi TV ñoom ñoo ko doon def mooy Cité Acquise yi ñu gis la fa tamit nga fay jouer sa dugg si foofu noonu nga xamante ni moom moo di biir Marodi TV naka la demee euh, di euh, lépp daati moo ko parce que dañ maa fekk may def ak daati benn vidéo pot foofu la ma gisee après bi ma gisee foofu mu ne ma genre gis na ne que man ku ma jàppale damay dem ñu waxtaan man ak moom vite fait ñu jëlante ay coordonnées après ci la ma woo heureusement ak moom ñoo bokk parce que mariste laa dëkk ci benn kër bàjjan ci lañ ci la ma wax naa ñëw ci lëkko yi foofu ma dem foofu ma essayé ak ñoom nekk ak ñoom waaju baax di def ay émission la xew tey nekk fa après ñu dem ak ñoom ba cité acquise après courant bi passé ma nekk di liggéey ak ñoom pendant quatre ans. Mm-hmm. mais pourquoi ñu gisoon la ci seen benn euh, production kese gisuñu la woon ci yeneen yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def biir Marodi. waaw parce que Marodi nag commencement ba ma fa bi ma fay njëkk a dem boobu fekk na mm-hmm. Marodi doonul Marodi bu baax a fet da ñoom dañoo dañoo dañoo am fulla rek nangoo liggéey. xam nga fii site boo fi gis rek bi muy commencé mooy loolu léegi ñoom bi ñuy commencé jom ak fulla rek lañ doon demee mais demeewutoon noonu ndax benn kii rek lañ fa musoon def benn série bu Cité Active moom rek lañ fa musoon def yooyu léegi Cité Active bi ñu ko defee dem naa ak ñoom bokk ak ñoom Cité Active bi léegi bi ma demee ba am fa ay ay deux ans yooyu ñu ne pourquoi pas ma def ay émission ci laa commencé def ak li xew tey ak ñoom waaju baax Mhm. ma nekk ak ñoom tamit ci émission boobu pendant presque ay huit mois. Mhm. après ci la ci la ci la ci la bàyyi foofu. Mhm. jugee jugee Marodi. Euh, dem DTV. le fait que delluwaatoo tey jii ci beneen production wu Marodi parce que bu ma la déggee sànq say biir wax ba nga fay nekk maanaam dañ doon demee ak les moyens du bord les moyens du bord. ba ngay nekk Marodi maanaam taxu ko woon neex-neex yooyu. mais jamono ji ñëpp xam nañ ne Marodi neex na léegi lan moo tax delluwaatoo. parce que dama jàpp ne sama mission jeex na foofu rek xam nga kenn du wax nag kenn du wax ne euh, comme du ma jeex na fa tàkk parce que yàlla rek moo xam te yàlla bu nammee ma demaat ci suba tamit dama fay demaat suba ndax kenn xamul mais man may jugee ci moom juge naa fa juge naa fa ak lu rafet. Mhm. ànd nañ ci ay kàddu juge naa fa ci lu rafet. instant bi maa ngi event si pro te ñoom baax nañ waaw euh, tonton Ibou jàppe na ma comme doomam bugul dara lu ma naqari franchement waaw rôle bi nga fa am baax na te maa ngi kon jàpp naa ne instant bi maa ngi event si pro lu ma am event si na ma boobu naar ngi nit nopp naa la xudaa naa bi nee na ma je suis prêt à ay yow ay yow ay yow mon cœur bat fort là ah. mais bi ñoo xëy ni nee ma bi dafa joxe këram ba loolu moo ma xaw a jaaxal ci waxtaan bi euh, non bokk si de kan laa jox sama kër yow da xam ku ma jox sama xol mais tamit bàyyi toon <laughs> bi bi ñu lay seetaan de est que xam nga lay seetaan mais ñu ngi may seetaan mais bu tax nga ne damaa joxe sama suma xol bu ma tooñ joxe woo sa waaw maa la gay nee ma am na wala Balla Gaye nee na ma bik yow ñaaw moo amul problème. ma ne ma ne ko ma ne ko Balla Gaye ñaawu gën dee du ñu ñu jàllaat feneen. waaw big maman tey li la gën a def révélation bokk na ci kilibu bu Bambali Seck. Mm. Mm. clip ñu bëggoon nga ñëwoon ci tuuti sa diggante ak Bambali Seck. ak ni nga def mm. ba jouer clip bi noonu mu réussir. Bambaali moom franchement su may wax ci moom sax sama xol lay tooy ndax xam nga nit ki moom bëgg yëg koy fay. dina tooy parce que te yàlla dafa def ne. dafa baax ci man. Bambaali dafa gentil macha allah Bambaali nox fois la ñu xamante woon man a ak moom ñu jëlante ay coordonnées depuis lors mu nekk sama xarit mu def clip muy def clip sama ci mu wooma waxtaan ci ak man lu yàgg wax ma naka lay ma ne ko yow xam nga ne boo ma invité ci sa sa clip damay ñëw te saxloo ci yow ñaataram parce que dafa ma yàgg ci ji teraanga te man boo ma jiyee teraanga rek rey nga ma macha allah daf ma doon fekk sax RF RFC ci benn kii bu nekk foofu benn resto fast food ñu jënd lekk suñu waa kër yëpp lay jëndal te bu ko neexoon mu a loolu du ko def ma wax mu jël lépp bu buy ñibbi moom du lekk yaa ngi comprendre may def muy def clip ma ma jël lépp loo xamante ni dafa war ci kilib bi ci sama bopp yëpp man maa ko fayal sama bopp dem defal defal ko clip bu sedd xolam parce que moom moo ma ji teraanga ma delloo ko ko ndax nit moom bu la jiyee teraanga mënoo def lu delloo ko ko ak sa réew tool waaw léegi ma def clip boobu macha allah xam nga dara boo ko defee ak xol bu sedd bu ko moom xolam dafa set man ma def ko ak xol bu sedd guy ak xol bu set yàlla def ci daal def ci jàmm joo xamante ne clip bi dem ba ñëpp di ko coow macha allah mu doon clip boo xamante ne neex na ñëpp ñëpp di ci waxtaan waaw mu doon sama sàcc léegi ma ma daal di sàcc xolam mu may wër may daw ba tey jii munu ma ko delloo xolam dama koy bàyyi muy suuf li ba si kanam muy gën a waaw ba tey soo ko yëlee day ba tey baax na mais clip lañu des ak yow ñu gis la ci ngay manière ah di ci def euh, yoo xamante ni hmm, ñi la xamul carrément dañuy laajte est-ce que Big Mama nii la mel naturellement. Mm-hmm. ni nga friwee ci biir clip bi ni nga friwee ci biir clip maanaam def nu la neex ci biir clip bi. <laughs> mais yow clip bi dama ci timide non. wala comme ni ñu koy waxee sànneeku yeeg fulaale yeeg xaw ma fakkasalu yeeg yaa ma na xam foofu laa bëgg a dugg. mais noonu. loolu damay damay prouver sama actrice damay prouver sama mën sama mën liggéey comprendre nga parce que nit ki bu fekkee dafa opté wu doon actrice durant toute ta vie buñ la invité ci dara da ngay da da ngay wone ne comme yow da ngay wone li nga doon comprendre nga parce que dama ñëw dama ñëw ci clip bi dañoo wax ne comme si que ne man dama sàcc xolu Bambaly Seck man dama war a mën a jaay affaire Bambaly war koo gën a miir loo moo war a mais clip bi dañ cee <laughs> bandi ba pare sadi di ko gis clip bi ba pare sadi da nga bandi ba pare sadi sàcc xolu jàmbur ba pare sadi non eh, parce que xam nga lu tax parce que d'une part bambale daf maa tooñ moo tax ma fayu euh, bambale toog nga di naan ataaya man ma romb ko rek mu ne damaa sàcc xolam si facile romb nii rek romb fas rek fas rek bambale mu mm-hmm. ne damaa sàcc xolam daf ma tooñ moo tax moom ko ne nag tooñ nga koo xam ne kenn du ko tooñ ma ko ah dama laa tooñ du damaa romb rek sàcc sa xol dinaa fëraale sànnee ko ma xool lan laay sa xol boobaa ah, xam naa da ngay daal di dee rek nëbbu ma la ko de mais ni ngay rombe moom bu dee chaque jour noonu ngay pour jaamu yi nga sàcc bari na trop. boobu laa waroon njëkk a def boobu laa waroon njëkk parce que boobu lañu njëkkoon gis sama image ma waroon njëkk a dem ma feebar après deuxième fois bi ci laa dem xam nga boo feebaree tamit benn nit du ñu di ko xaar. parce que mm-hmm. Sénégal xale yi yaañu nañ xale yi chon nañ xale yi baax nañ xale yi mën nañu lool li ma mën tey sama morom yëpp ko mën duñ ma ko sax gënul mën sax booy xool. Mm-hmm. léegi après man bi wéree euh, yàlla xam nga yàlla ba fu mu foofu nga war a nekk. foofu ala kulli à force danga fay nekk ken mën ci dara oh. après ci laa tane ñu woowaat ci ci mooy set fii set band yi yu mujj mm-hmm. ñëw yi léegi ci laa ñëw ñu defal ma casting dama def casting nag dama def casting comme sama morom yi bi ma defee casting ci laa réussir casting bi après ci lañ xool loo xamante ne dem na ak sama sama sama salon salon sama sama sama ni ma may. say say say dégagement maanaam say dégagement. dégg nga loolu xam nga yaa ko waxuma ko. ok <laughs> non mais si loolu <laughs> parce que tu l'as réussi carrément rôle bi moom kenn waxatu ko. Ah, merci beaucoup c'est mais mais tey bi nga ko joué ba pare tey bi ko joué ba pare dégg nga si mm. dégg nga si dara au fait rôle bi. Mm. parce que du n'importe qui la jox genre rôle yooyu mu ko joué di ko réussir carrément. dëgg la mais am na ñoo xam ne tey boo leen ko joxee am na lu ñuy xalaat wala am nañ complexe pour def yenn yi. Mm-hmm. mais mais rôle bi booy xool booy xool mm. dara nekk ci parce que mm. rôle bi man defu defuma ci dara loo xamante ne tey nit mën na kaa gis ñaawal ko juste ne benn bandi laa ah genre dañuy dem di cambriolé dañuy dem ci ay mm-hmm. soirée di sàcc xaalis buy ñibbi see mm-hmm. séddoo xaalis bi séddoo ay or te ku ci mm-hmm. nekk dafa am jaar-jaar bi tax ngay def loolu après comprendre du loo xamante ne man sama sama coobare bon moo tax ma def ko du loo xamante ne keneen ak keneen coobare moom dafa bon moo tax mu def ko comme xam nga tey Sénégal di nga yar sa doom wala mm. sa yaay dina gaañu sa papa gaañu nga am kenn ku la yar ci àll bi nga mm. souffrir doon benn nit boo xamante ne bëggoo koo doon mu waral tey nga gis benn temps nga dem dugg fa duggoo fa malgré toi mais da nga faa parce que liñ la doon métital la comprendre la moo tax nga dugg fa léegi loolu nag moo waral loolu moo waral rôle boobu bi ma jox noonu loolu moo ko waral te bu may def rôle bi dama koy def avec amour comprendre mm. parce que tey man rôle bi ma dox xaw ma ko parce que mosuma kaa def mais vu que mhm. dama jàpp ne man actrice la te bëgg naa dem bëgg naa romb fii comprendre je pense que ne man lépp luñ ma mën a jox ci milieu ci milieu bi rek dama ko war a def oh, premier début bi buñ ma ko joxee mhm. c'était un peu difficile parce que dama ne est-ce que lii dinaa ko réaliser parce que lii bañ na ko ba kii mu ma doon tooñ sax suñu suñu suñu suñu kii bi tonton ku baax ndeysaan mu ma doon tooñ naan ma yow bi maa ngi laajte de mais ku ma laajte dañ ma naan tàppet de bi baarul ko man ma ko bi laa ko ko tonton Ibou bilaay bilaay parce que euh, tout bu koy seetaan dafay rëy bay bëgg de daf ma naan non non mënu maa kii mm. euh, réellement moom mooy moom moom mooy def moom mooy def loolu tu comprends loolu moo tax nag mais après li nekk ci film bi ak yow ki nga doon du doon benn moo waral tout le temps da ñi xamal la xamal leen tout le temps yow ki nga doon mm-hmm. mais ñun on a tendance à à juger les gens comme par les gens comme par exemple euh, nu ko mën a waxee sax dañ lay jox benn rôle boo xamante ni tuxkatu cigarette maanaam ñu jox la ngay tux ci rôle bi tout le monde mm. pense que ni yow tuxkat nga moo tax ñu jox la rôle bi ñu jox la rôle càgga tout le monde pense que ni càgga nga moom moo tax ñu jox la càgga ñu jox la rôle naankatu sàngara ñu baal ma ci terme ci kàddu yi euh, ñu jox la naankatu sàngara mm. ñu yaakaar ni mandikat nga moom moo tax ñu jox la mm. euh, rôle boobu noonu te alors que demeewu fa noonu waaw noonu lay demee man man rôle yi ngay wax yëpp mujjuma kaa def euh, naanuma tuxuma def ma lu bon mais ñi koy def tamit taxul ñu bon mhm. ci série bi ñu ko def taxul ñu bon parce que xam naa leen bu baax ndaxte tey da ngay ñëw ci série ñu ne la defal léegi xam nga boo doonee actrice doo bañ daal ñi koy def amaana ci série bi la ñuy toog te balaa ñëw tur sax ñu koy tourné dañuy sonn parce que dañuy sëkkat di def lu nekk mais vu que rôle bi moo ko laaj te seen bëgg-bëgg moo laaj comme ñu def ko dañ koy def comprendre nga léegi mm-hmm. Sénégal ñoom dañuy confondre dañuy confondre mooy personnel ni personnalité di ji ak li muy joué ça fait deux mm-hmm. tey biir maman mu ngi dugg tey ci joué mm-hmm. niveau sàcc mais man duma sàcc kat cambriolé man duma cambrioleuse du dëgg loolu big maman moo koy def big maman mooy def loolu mais bu ma xasee ba génn foofu rek nekkatuma big maman je suis yambe comprendre moo tax tout le temps euh, nit ñi di Sénégal xam nga tey boo demee Europe tey booy mhm. seetaan ay film wala ay série ñoom ci sa mhm. bopp ñoom ñoo lay encouragé parce que mhm. da ngay dem euh, da ngay dem tey comme comme comme benn film bu ñu naan Casa de Papel seetaan nga ko euh, da nga dem gis bandi yi tey ñoom lañu ñoom lañ doon soutenir ci biir film bi band yi tey bu ñu nekkee ci ci biir di cambriolé ñoom ñooy taxaw ci biti di leen di leen di leen soutenir te bu nekkoon Sénégal la tey dañ lay xas wala nga romb ndeysaan yal na ma a jéggal ci kàddu bi ñu ne la cagala peut-être dañoo xamut loolu moo ankay ankay ankay dinaa leen bàyyi ngeen waxtaan ak moom pour man képp ku wax loolu ma gën a góorgóorlu te dinaa na ma bàyyi la waxtaan ak ñoom dinaa leen bàyyi ngeen waxtaan ak moom Euh, mais le temps ma ma terminer ak moom rek mm-hmm. euh, ma bëggoon ñëw ci par exemple euh, maanaam ñi nga xamante ni dañ lay juger ci sa mm-hmm. habillement surtout ñi lay juger ci sa mm-hmm. habillement habillement bi Big Maman ni muy solo habillement bi waaw loolu laa lay expliquer ma xam nga si nit ku nekk aussi tamit boo nekkee ndaw da ngay a di def loo xamante ne tey danga naan ak ah, lii xale laa rek moom moo ma ciy dugal mais première fois bi ma defee ITV ak waa ma xool Seneweb la woon après bi ma defee ñoom bi ma waxee dama leen xamal ne que ne man tey bu may bu may bu may théâtre sama soppe yi tey ñooy tax may théâtre tey xale bu am cinq ans sax may naa ko bu amee lu ko neexul ci man woo ma téléphone ne ma bi ba ma ne naa mun a ma nii ak nii bëgguma ko te dootuma ko defaat yàlla xam na ko ndaxte man sama soppay laa am ñoom laa bëgg dëgg la vu que ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ne peut-être tey des fois damay solo damay noo xamante dafa vulgaire c'est parce que tey bëgg nañ ma toll foo xamante ne tey sama morom yi ñu ngi ndax tey bu leen neexoon ñu jaay ma de ma solo ba ñu toog fee naan moo yow li nga xool dafa baax te boobaa damay jaay ko rek di fuddal ay los te damay continuer di dëgg moo tax nag ñoom bu ñu ñëwee tey xool ma ba ne sama abima neexu leen damay jàpp ne kon ñu mu ñoom li ñu wax mooy dëgg change ñoo bëgg ma changer moo tax boo xoolee des fois damay toog sama Instagram supprimer ay vidéo yu bëri ndax bëgg lu leen neex. ah hmm. sama vidéo yi parce que da ngay parce que da jot ay message wala ay appel yoo xamante ni dañ naa la sa Instagram li ci sol waroo ko sol wala tu t'exposes euh, carrément. non pour dire vrai pour dire vrai man nit musuma message boo waxuma loolu liñ may wax tout le temps da nga baax danga nga oyof foo boo dajee nit ci mbedd mi day mel ni comme genre nit bu simple laa. loolu lañ may wax tout le temps mais bu mm. may def ITV tout le temps dañ may mm. wax dañ may wax wax ji kon ma jàpp na xam nga tey ku ci mm. mel tey ku ci mel ni waa Sans Limites tey luñ la wax dañ koo far ci mel du ndax ndaxte tey yéen yéenay Dakar yéen yéen a xam lépp ndax nit tey mën na laa bëgg sax ba rus laa wax yenn yi comprendre nga yéen ñi ngeen xamante ne na seen liggéey ngeen tey bu ngeen foree dara ci mbedd mi yéen da ngeen ma koy wax kon moo tax dama ciy bàyyi xel lu bëri damay jàpp ne bu ngeen ñëwee benn site bu ma ko waxee ñaari site bu ma ko waxee ñetti site bu ma ko waxee kon dafa di loo xamante ne tey ci man la nekk moo tax bambaali maa ngi lay nuyu de passage xamoon naa di nga dugg yow mën nga bëgg <laughs> gis naa ko baax <laughs> man lay wër kii <laughs> man lay wër ndeysaan nee na lu baax defuma ko waaye kenn du moom moom moo ma baax moom moo baax bëgg ma macha allah ñoo ngi bu baax a baax bambali ah. ñoo ngi lay ziar bu baax a baax yow tamit. ayca euh, ñu juge foofu daati ñëw ci sa diggante Bambali da nga tardé ah waxtaan ci sa diggante ak Big ma maamee boobu jotuloon nga dugg ah. mu def ay témoignages yu rafet ci yow macha allah ah yal na yàlla lafal cat ah yeggali ànd bi rek. moo baax léegi bu ñu foofu dañuy ñëw ci sa diggante ak Marichou ñu gis leen ngeen am ah. benn complicité bi nga xam ni bu leen seenee ci vidéo wala ci TikTok sax on a l'impression que ni buñ gisee Marichou Big Mama la buñ gisee Big Mama Marichou la complicité bi fan la juddoo. Euh, Marodi. Marodi la jógee balaa dara baal ma ma ma dagg wax bi tuuti Bambaly Seck yàlla xam na ne yow yaa ma gën. yow yaa ma bëgg yaa may sago jël sa woy bu toll ne miir naa woy ma ci woy ci sama waa kër woy ci sama rakk woy ci ñi nga xamante ne ñooy sama famille kon yow man aw ma sa fay yow de bambali daf ma jël rek dugal ma ci biir boppam yaa ngi comprendre daf ma bëgg dafa baax dafa oyof bambali fu ma nekk rek mu ngi fa mais bul jooy bul jooy bul jooy non du ma jooy saa xaw a tuuti rek xam jooy yi ma na en man man ak Marichou depuis Marodi la man ak Marichou depuis Maroc bi la macha allah mu doon nit ku baax nit ku ma bëgg macha allah euh, Marichou man ak moom dañoo xamante ci xamante bi nga xamante ne dafa naturel. dafa ñëw yi fekk ma ma toog fa. te man ma yàlla def na ne xam nga tey yàlla mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ay nit. mooy ñëw tey fekk ma Marodi ma dalal ko parce que man maa ko njëkk a Marodi mu ñëw su may dem defi sama ay émission Marichou daf may topp naaj bi lu mu tàng tàng daf may topp ànd ak man. kooku la ñu xamante man ak moom waaw mu wàcce mu doon nit koo xamante ne dafa wàcce boppam man ak moom ñu dem ba suñu famille xamante muy dem may dem ba nga xamante ne lépp lu ko neex ci àdduna man la koy wax wala lépp lu ko naqari ci àdduna man la koy wax ñu dem ba nga xamante ne ñu doon ay xarit doon doon ay complice doon ay complice du moins mu doon mm-hmm. nit ku baax macha allah nit ku oyof tamit mm-hmm. man ak mm-hmm. moom ay xarit lañu mari des fois ñu dañoo bokk mais li leen di jaawale dafa parce que des fois dañuy déglu sax sa voix yaakaar ni moom mooy wax. waaw parce que parce que des fois xam nga dañuy naan ànd bu ànd bu yàgg day indi nduroo mm-hmm. comprendre nga bu ngeen yàggee di ànd yéen ñaar da ngeen di dem ba da ngeen di nduru geste da ngeen di nduru manière da ngeen di nduru ni ngeen di waxee Marichou dem na ba nga xamante ne même ni may waxee xam nga ay wax boobu ni muy waxee noonu di reewante noonu naan ay man mm-hmm. man teewu ma de genre yooyu ci man na ko jëlee en parce que dama doon ñëw dama doon ñëw su ma ko nee Madi ibbi ma damay ñibbi de mun ne ibbi ma ne ah, kon man damay ñibbi léegi muy dégg may wax noonu genre bi muy wontu xamante ne moom tamit ma toppandoon naa moom daan wax kon kon man sama yoon nekku ci man kon man damay booleeg sama yaay léegi muy dégg muy may wax noonu dafa def buzz en fait seen vidéo boobu <laughs> non vidéo boobu dafa dafa doy waar dafa garaaw dafa doy waar ndeysaan nit ñi dañoo baax waaw Marichou sax moom laa laaj mu ne ma big maman amul benn far am na cinq loolu la ma Marichou Mari moo la wax <laughs> Mari moo xamal loolu ba keroog moo koy jël ci direct bi mu démenti Mari moo ma nettali bi daal ñu door a xam ne Marichou de cinq la ci yow fanaan ci moom lu ci fanaan ci yow xamal na ni ma cinq la Marichou waxul dëgg Marichou waxul dëgg moom fen na Marichou fen ah daf la sosal moom a sosal a sosal Marichou moom dafa fen Marichou a sosal yow Marichou à sa tool yi ma ne booy Massia mu génne ko këlam ci biti Marichou dama fanaan ci mbedd mi Marichou moom moo moo moo fenal. ah ah sosal yow de ah Marichou. Marichou sosal ma fenal ma fen bu dem ci saali ba ne loo ma fen. <laughs>